salaamaaleykum mbokku internet yi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel saa su ne euh, ci sunu gaal 24 muy euh, YouTube bi muy site bi Facebook suñu différentes platforme yi di leen jaajëfalaat bu baax a baax euh, ñu ngi fii nag Medina Baye Kaolack fi nga xam ne moom mooy jumaa ji grande mosquée Medina Baye comme ñu koy defee nag at bu ne rek fi mu nekk nii nag gis ngeen ne tey mooy bésug gàmmu ñi nga xam ne ñoom ñooy pèlerins yi bàyyeekoo fu ne. fii ci Sénégal wante dem ci bitim réew ñëw nag ngir màggal li nga xam ne moom mooy euh, juddug yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi mu nekk nii nag euh, ñoom ñëpp ñu rang fas yéene dem def li nga xam ne moom mooy seen ay euh, ziar kon dañuy fas yéene rek xool ñenn ci ñoom ngir nag recueillir seen ay impression waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne kon moom mooy lii lay di guddig gàmmu gi asalaamaaleykum maa ngi leen di sant di leen gërëm. Tamba laa jógee. yëg-yëg jamono ji nga xam ne kon euh, ñu am mbégte rek am euh, mbégte rek waaw ci bisu tay bi di bisu guddi yonent yàlla Mouhamed Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ñu am mbégte ñëw Medina Baye waaw ñëw gàmmoo fii ñëw ziar waaw am nañ ci mbégte lool sax macha allah. fekk ni ziar nga pare wala ziar ko fii depuis bi moo gudd rek mais incha allah moom dañuy ran rek ba dugg soobee yàlla ndax maam Baye moom jaral nañu ko incha allah ñu ngi fii nii depuis ay 19 heures yooyu noonu waaw. gàmmu fii mel na bàyyi nu ngeen koy dundee par rapport dañuy gis ne maanaam ah, rek. parce que gàmmu ren bi moom ku ko gis moom xam ni macha allah waaw gis nga dëkk bi xat na gars yi ñëw nañ waaw macha allah daal gars yi nañu ko fu nekk ñëw muy Mali Nigéria États-Unis fépp daal seetlu nañ ne gars yi bàyyi ko nañ ñëpp pour ñëw rek fekkee bésu Maolana bi tey waaw. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa ngi nuyu mbokk yëpp di leen di ziara di ziara ahlu Medina yëpp di ziara suñu sëriñ suñu xalifa Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahim di ko dale ci moom Cheikh Mouhamadou Amin Cheikh Mouhamadou Muntaqa ma euh, jëm Cheikh ak Cheikh Mouhamadou Mahdi Cheikh Khourechi ñoom ñëpp Cheikh Abdou Malik njabootu baay yëpp ci góor ak jigéen ñi ngi nuyu ñëpp di leen ziara di am kontaan bu mag bu rëy mi nga xamante ne baay radiyallahu anhu moo doon wax ne su weer bi xasee ba taxaw rek xëy na Ibrahima laa ilaalu ilaalu ba daal naaw dina jamaalu gis nga weer bi nga xamante ne ci la bëgg soo xoolee xar kanam baaba la sax bu weer bi ñëwee lu mun a xew baaba day taxaw day moom mooy fipp jug taxaw wax dëgg yàlla macha allah ñëpp gis nañ ak xadar bi mu ànd ndax bëgg yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa bi mu jeex ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa waa ñu nuyu xaadimatu umma bu baax di képp di ñaan képp koo xamante ni ñoo nga Medinatu Munawwara Medina Baay bi mooy Medinatu Munawwara ba ñu ngi leen ñaanal di ñaanal mboolu ñu fi teew ci góor ak ci jigéen mag ak ndaw di wax ne képp fi ñëw na fi ñëw ak dal ak yar ak teey maa ngi ko doon fàttali Cheikh Oustaz Ahmed Ba yal na yàlla suñu borom yokk leeral bàmmeel xamal aljana da nga daan waxtaanee ci lu mel noonu ci heure bi bu amee bu jotee nee na ñëpp ñëw xam na ne Baye moo waxoon ne taalibe yëpp ay sëriñ lañ te fii di nga fekk koo xamante ne wax dëgg yàlla xolam xelam léppam mu ngi ci bàyyi mu branché foo xamante ne tey jii nii boo ko cosee wala nga bu ma ko rek nga yàq nga dagg xaalam digganteem ak boromam direct te nekkul lu yoon kon nañ ànd ak teggin ànd ak dal te euh, top sécurité lépp lu ñu wax bu ñu la fii ngay jaaree jaaree côté bi bu ñu la sumina seen ñëpp sumi seen daal yi wax dëgg yàlla mbir ne mu ngi saf yàlla mosul sappeeku o contraire day gën yokk di dem kon ñu ngi ñaanal xaadimat di ñaanal njabootu baay yëpp. nuyoo bu baax. tur bi naka la. la Barhamis. macha allah. Ousmane mhm. mhm. ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi di gërëm Mawlana Cheikh Ibrahim Niass di ndokkal julli jëpp ci bésu màgg bi bon ñu ngi bi xam nga du yomb ndax nit ñi bokkuñu éducation bokkuñu nuñ mel ku ne ak sa manière donc yombut mais à la kulli on gère. parce que li ñu bëgg mooy bëgguñu ko dugal dàllam ci biir jumaa ji parce fii ñu taxaw nii dañ fiy julli beneen saa yi day fees donc ku dëgg ndox ñoo dugg ko fii mu nekk soobee nga julli si kawam loolu baaxul donc ñun loolu la ñuy joué suñuy rôle waaw moo ñu an daal ko génn ak ñuy muur seen ñu muur ko si marché bi si biir dëkk bi am ñu fete ay musique ak yu noonu ñun yooyu la ñuy nekk di xeex moo la tudd taaru Médina Baye suñu yitte loolu mooy suñu ah, ma macha allah. Mm-hmm. tey gàmm gis nañ moom aspect mooy inauguration ne. Mm-hmm. yaa ngi ne waaw waaw waaw waaw loolu la xam nga fii esplanade bi patrimoine la ndax Maolana Cheikh Ibrahim fii la doon toog di way yonent yàlla Muhammadin salaa salaam Baay Ñas dundam bi lépp da koo def si yonent bi salaa salaam wax na ne moom Baay lépp lu mu am rek yonent moo ko ko may wasa kulluhu min hubbi seydil mursalina alayhi salaatullahi wal tuuli shaniya wax na ko lu nekk si baax loo xaat rek lu baax rek Baay wax na ko yonent yàlla moom rek la yaakaar moom la bëgg moom la dund moom la gis nee na moom lay lekk wa akli wa sharaabi wa huwa diini wa jinaani wa huwa unzi wa huwa kanzi wax na ko lu nekk kon bàyyi fi daan toog di wax yonent bi sallallahu alayhi wa ci guddi rabiul awal mu nekk jour bu même euh, bu màgg si ñun suñ demee tey ba doomam xalifaam Mawlana Cheikh Mouhamadoul Mahi am am am initiative bu changé ko mu méngoog jamono wax dëgg yàlla loolu lu rëy a wax dëgg yàlla ndax place bi symbole bu mag ndax fi la bàyyi doon toog kon donc suñ ko defaree bu méngoog jamono ñu ngi ndokkal Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahim Niass ci inspiration am vraiment ku gis lii xam ni joie bu rafet rafet rafet la sant yàlla la te incha allah ci ci kanam la jëm waaw ci kanam baax ci kaw baax incha allah bu soobee yàlla bu soobee yàlla. ñu ngi lay jaajëfal baax. jërëjëf jaakalaa xeeral merci jaakalaa xeeral. la ilaha illallah الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله الله إلا الله لا إله إلا الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله الله إلا الله لا إله إلا الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله الله إلا الله لا إله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 إلا الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله إلا إلا الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله ما إبراهيم وأيوب لا إله إلا الله الله الله إلا الله لا إله إلا الله إبراهيم وأيوب لا إله إلا الله الله الله maa ngi leen di fay man Fatima Diouf laa tudd Diouf man maa ngi bàyyee ko frontière Sénégal Gambie gën a ah, jóge ah, ñu gën ko xam ci ñombaato uh-huh. Uh-huh. Eh, tey maanaam lan mooy say impression gannaaw bi nga ñëwee naa ba pare. waaw mbégte rek mbégte saayu yu weer bi teeroo comme suñu sëriñ rek nu mu ko doon dafee ñu am mbégte bu rëy a rëy ndax moo ñu tax a jóg macha allah mbégte rek la ñu am waaw. loolu mooy mooy mooy aspect bu gën a particulier ci gàmmu gi mu gën a spécial waaye ñu am mbégte lool euh, biñ ko taxawalee ay taalibe lañ nag euh, vraiment am ci mbégte lool di ñaan nag mu gën yokk macha allah. mbégte daal lañ am waaw mbégte bu rëy lañ am macha allah. saa yu teroo daal ñun dañ koy waajal fuñ mën fuñ mënti nekk daal dañ koy waajal bu ñëwee ba teew nag mbégte la ñuy am euh, ay taalibe Cheikh Ibrahim lañ waa jeex nag tàkk waaw bu laajoon sax dox euh, doxe Gambia ba fii wala doxee frontière ba fii dañ koy def ndax mbégte bi ñu am euh, spécialement nag muy esplanade bi ñu doon ko inauguré démb donc mbégte bu rëy daal lañu am macha allah di ñaan nag. liñ fi ñaan yëpp euh, yàlla nangu daal yàlla nangu te kiñ koy defal jaral nañ ko jar na ko euh, muy euh, sallallahu alayhi wa yoon yonente bi ndax mooy sang-sang yi macha allah. macha allah asalaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ñu ngi jaar bu baax a baax alhamdulilah. kii Amadou Diallo la. Ah, man maa ngi bàyyi ko depuis Fouta. si département bu ñuy wax Podor village de Pété fa lañ bàyyeekoo. macha allah. incha allah euh, teewee gàmm gi ana tey loo ñu mën a mën a wax si voyage bi ak it sa yëg-yëg jamono ji. sant yàlla mbégte bu ñu mënul wax la maanaam lu toll nii juddu yonent bi sallallahu alayhi euh, maanaam dañoo sant dañoo sant yàlla bu ñu bàyyi woowee si euh, mbégte mii waaye man nekkuma koo xam ne day ku ku mën wax laa waaye nag. à ma façon mun naa wone mbégte mi ma bàyyi defal hani li ibrahim allaha hilaaluhu hilaalum badalina zirina jamaaluhu hilaalu rabi'i fi hijaa muhammadun فتم لنا البشرى وعم نواله lu si des moom mënuñu ko wax bari vraiment macha allah. maaleykum salaam. sëñ bi la. maa ngi lay seetlu lu bëree bëri alhamdulilah. maa ngi ñu ngi may wax Aboubacar Soxna. Aboubacar man maa ngi dëkk fi ñuy wax Paymar. dëgg la nekk ci maa ngi doon jàngee fii Mahad El Hadj Abdoulaye Niass bu Kaolack. macha allah depuis 2009. tey nag dañu ñëw fii si Medina bay fi nga xam ne mooy muntaxal duniya nga xam ne tamit mooy jeexuwaayu àdduna bi kon dañ lañu sant bu baax a baax gannaaw ba ngeen ñu intéressé pour ñu wax ne dëkk bii nag dëkkab xewal la dëkkab lislaam la waaye dëkk ak sant yàlla la ndax Baay moo ñu waxoon ne Kaolack gii mooy jeexuwaayu àdduna bi kon yaakaar naa ne tey suñu ñëwee fii si Kaolack nga xam ne mooy jeexuwaayu àdduna bi kon aajo yëpp dina faju ndaxte moom lépp daf doon liggéeyal yàlla ak yonent bi ndaxte waxoon na fa hubbu rasulullahi qudmun wa raahatun wasnu araahu lil muhibi masira nee na bëgg yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa salaam loolu koom la kon ndege moom dafa bëggoon yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa salaam ba nga xam ne lii nii nga gis fi yëpp nit ñu si bëggee li yonente bi lañ ko amee kooku dëgg dëgg dëgg dëgg ñun ñuy taalibe dëgg dëgg dëgg dëgg ñun ñuy ndaw war nañu xool si moom war nañu roy si moom war na nañuy jàngat war nañu sentu te jub fas yéene nag ni moom ndax Baay Ñas dundam gi yëpp da koo joxoon yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa salaam dundam gi lépp lépp lépp lépp lu mu am rek jox na ko yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa salaam nee na moom bëgg na yonent bi bëgg goo xam ne wala nu mel si moom mëntu yokk mëntu waa ko yaa ngi dégg lu wax ahbabtu hatta araani kuntu wa rabbi yàlla yaxlu makaana wala waxtaan mu ne bëgg naa yonent Yàlla sallallahu alayhi wa salaam mu di nekk si moom ndegam Baay Ñas na loolu ñun ñuy taalibe neen fexe jokk su ñoom ànd ak yar ga ànd ak tegin ga nag baa ngees yar la oote teggin la oote ndaxte téere bu mu njëkk bind mu nga lan tuddee ko lan ruhul adab kon yaakaar naa ne képp kuy taalibe soo ñëwee si bërëb bii nii na nga wàcce sa mbubu na nga wàcce sa verre nanga nga wàcce sa lépp si nga waxee loolu nag si maqaama nag du woon ne ku sor weer wala ku sor su lépp rek da nga war a wàcce nag mooy na sa xol bi fuglu ne yow yaa ngi si bërëb bi na sa jëmm ji fuglu ne yaa ngi si bërëb bi na sa lépp fuglu nga xam ne yaa si waa ji nga xam ne dafa bëggoon ñeente Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon de la ñuy sant bu baax a baax maa ngi la ñuy bëri bëri si bés bi nga xam ne bés bu tedd la asalaamaaleykum wa rahmatullah ya allah allah allah ya allah allahu allah ya allah allah ya allah allah ya allah bëgg nañ la ta dootul dañ baay barhama njaarama soppu nañ la ngir yàlla billahi baay njaarama suñu mbëggeel gi dootul dañ du masa masa dañ yow njaarama wóolu nañ la ngir yàlla billahi baay njaarama ahlan bi mawlidi zakkarana bil muqtadi aslil usuli sayidin habibana al mubajjali لقد كان خير مرسل قبل الوجود أولي ولم يكن من جندلي لأصلنا المؤسهل لم يطر خير خلقه في خلقه وخلق سوى الإله آقه من مالك أو مرسل لولا الحبيب المرتدى من المسان يرتدى ودينه الذي ارتدى إله بأسلي man Alimatu Balde laa tudd man Koukandé laa jógee euh, Koukandé Fulbe laa jógee waa région de Kolda fii ah fii moom damaa ñëw fii pour gaamu bi rek pour ah ak nete Baye Niass loolu moo ma indi fii ah ñëw ah, parce que dañoo bëgg affaire affaire affaire bi affaire bi nice parce que tamit dañoo bëgg bàyyi rek yàlla tax waaw. te daf ñuy jubal benn yoon. Mhm. moo waral ñu def ni ñëw si gàmm ji teew. waaw te xeeb nañ ko bu baax tamit waaw. ñu man tam Koukandé laa jóge waaw. bokkuñu moom dara ko daa ñëw sàcc suñu turu dëkk bi waaw. Euh, waaw. en dañoo bëgg a bàyyi rek te yàlla tax waaw man moo tax te kii moo tax ñu ñëw fii tey garaas kii mooy Serif Babacar ay dara waaw moo ñu xamal Barhama Niass Kunkande mhm. waaw kii mooy suñu sëriñ mais kii sëriñ waa Basir Cerno Basiru Jaawa waaw ah ku baax la de moom dañu koo bëgg rek te yàlla tax. asalaamaaleykum yaa mat Zahra. waaw waaw. maa ngi bàyyee ko Kayaar. waaw. ñëwoon si gàmm gi ngir baay. yàlla nañ fi fekkee ay ati at si barke Baay Ñas di ñaanal Adja di ñaanal sama yaay yal na yàlla yokk seen leer tas seen barke si barke Maulana Cheikh islaam lii lépp bàyyi moo ñu ko jaral ak euh, guddi Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam dajawaat nañ fi yàlla nañ fi dajawaat ay déwéni déwén si baay Baye li ñu euh, gàmmu yëpp yàlla nañ ko yàlla nangul si barke Maolana Cheikh al Islam ñes Baye waaw am na laa am na li may yeg ci Baye Niass xam nga Baye mooy sama wasila tey ak suba man Baye Niass moom laa bëgg ci sama xol man baa Niass mooy sama sëriñ mooy sunu wasila bañ naa sax wax naa waa sababu faydu yi yàlla tere yàlla tere bés ma génnee àddina nañ may sikkaral bañ dencal ma waaw yàlla baax na gàmm gi waaw ma ajjuma la ñu ñëw wante dañu fekk uh, ñu kii dañu fekk njulli ba pare wante ni ma gisee gàmm gi macha allah macha macha allah waaw yal nañ ko fekkee ay ati at si barke Maolana Cheikh al Islam di ñaanal sama kilifa bu góor ak mboolem ñi fi ñi ci daje yàlla bàyyi leen fi ba si kanam a kanam a kanam kanam si barke Maolana Cheikh al Islam maa ngi leen ñaanal ak seen rajo bi seen rajo bi yàlla naka yàlla def rajo bu mag a mag a mag a mag si barke Baye ci barke Maolana Cheikh al Islam bëgg naa nag ngeen fekk ci ma Kayaar. ñu defante teraanga. yàlla baax na. sëñ bi ñu ngi salaam wa rahmatullah. bi naka man maa ngi tudd Abdoulaye Dione. Abdoulaye Dione foo bàyyeekoo gàmmu si. maa ngi bàyyeekoo dëkk bu ñuy wax Mbudaay Séeréer ci commune Ndiédiène. département Kaolack. waaw. sant yàlla rek. bés bi doon na bés boo xam ne. dañ koy ndokkeele suñu sëriñ Maulana Cheikh Ibrahim Niass ndaxte doon na bés boo xam ne moom rek la amoon bés boo xam ne moom la gënoon fonk su bés bi tere woon lépp loo xam ne amoon na ko ci mbaax ci taar ci alal daf ko doon génnee ngir teral ki nga xam ne mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gën ci mbindeef bon tey bu ñu ñëwee tey tànk yooyu rek la ñuy dox tànk wuyu si suñu sëriñ Maulana Cheikh Ibrahim tànk fóogalu tànk ziyaara tànk ñaan loolu mooy li nga xam ne moom moo ñu indi tey Medina Baye pour ñu ziyaara suñu sëriñ ndokkeel ko ci bés bi nga xam ne moo moo di bésam. noo gisee gàmmu euh, Medina Baye mooy dëkk boo xam ne saa yoo fi ñëwee rek dangay yaakaar ne euh, yaa ngi Medinatul Munawwara ndaxte Medina Baye euh, dëkk boo xam ne melting pot la. adduna yëpp ñoo fi jóge nationalité yëpp ñoo fiy daje fii rek ngay gis béréb boo xam ne amul der bu ñuul amul der bu weex amul chinois amul indien ñëpp fiy daje kulim juum ñëpp fi daje tey bés bii nii tey ak ay góor yàlla yu mag a mag a mag ay buur ay ministre ay député ay ay ay ay ay ay roi daal ñoo fi daje tey. lépp nag ngir ki nga xam ne mooy suñu sëriñ Maolana Cheikh Ibrahima ki nga xam ne moo nekkoon euh, ki njëkk a dox intégration africaine wala wax mën nañu wax ne intégration mondiale sax bàyyi loolu moo nekkoon mission ngeen xam ne ki nga xam ne mooy suñ suñu sëriñ dimension weesu na Sénégal mais dimension dimension mondiale la dimension internationale la jërëjëf. jërëjëf kontaan bu baax jërëjëf. maaleykum salaam. maman la. maman Ba. waaw. maa ngi bàyyeekoo ko ba Kër Massar. waaw ñëwoon Gàmmus. ah kontaan te ak mbégte parce que man boo gisee c'est la première fois maa ngi soog a ñëw Kaolack bëgg bàyyi nag yamalewu ma ko kenn mun naa ne sax mun na kese maa bëgg bàyyi <laughs> ndax ni ma ko bëggee ah loolu laa <laughs> ah, am na wax euh, maa ngi bàyyeekoo ba Kër saar gàmmu ji moo tax ma ñëw fii c'est la première fois may ñëw Kaolack. waaw bi mooy sama première fois. neex na moom neex na am na civilisation am na tamit am na sécurité am na lépp kontaan naa daal loolu rek laa mun a wax. waaw maa ngi nuyu sama yaay di nuyu sama papa sama rakk sama yaay moom daa yàgg bëgg baay moom télé sonnerie téléphone am sax Aïda Moubaye la si def. waaw dafa yàgg bëgg Aïda Moubaye bëgg bàyyi. kontaan naa daal aw ma dara. expérience ah gàmm gi neex na neex na macha allah neex na dugg xabru bi rang yi yooyu noonu ziar nañ nañ lépp vraiment kontaan naa daal. ah. non dootuma ko raté. ren moom falee mu ñëw moom su ma su ma su ma kiiwul woon damay ñëw moom waaw su ma ñëwul woon du baax moom kontaan naa daal. waaw. yow man yàgg naa ñëw Kaolack waaw ah Medina moom dafa nekk ville boo xamante ne dama ko bëgg sama xol rek euh, ma nekk taalibe Baye Baye Niass nekk sama xol ma yàgg koo bëgg nag moo tax chaque année damay préféré di ñëw di gàmmu si ànd ak sama yaay ak sama famille ñun ñëpp ñëw vraiment ñëw ziyaare si maam Baye Niass vraiment Medina daal dafa neex dafa neex.

nit ñi xaw a tooy tuuti waaye ren dañ kaa def def ko tànt bu mag macha allah ñëpp su kontaan si mu rafet bay bëgg a vraiment ñëpp kontaan nañ si daal man sax kontaan naa si. daal kontaan nañ loolu daal lañ mun a wax macha allah macha allah. waaw ah, ba déwén incha baay rek ñoo ngi nii ñun la waa baax yaay defoo si daal bëgg baay ñas mooy loolu ñoo ngi nii ñam ñam nday. ñoom Marie ñoom Aïssa ñoom Dieynaba gàmm gi neex na bëri na yàlla nañu ko fekkee ay ati at waa ziar nañ pare waaye dañoo bëgg a delluwaat suba ndax ziar bi daa mujjee neex